mbokk yi niñ koy defee rek ci bokk di nafaraat ak bokk di fàttalikuwaat li nga xam ne moom la mooy tolluwaay yi ñuy toll te am lislaam lu mu ca santaane tam war koo nafaraat war cee delluwaat ngir ba jéem a def suñ kéemtalaay kattan ci xam li nga xam ne moom lañu ñu suñ borom waral ci ñun nan lañ koy defee ak li nga xam ne moo ca war ñu nekkoon nag di waxtaane ci ajjuma ji weesu ci aj xamle solo si nga xam ne aj am na ko ci lislaam ak li nga xam ne moom lay indali indil ki nga xam ne moo koy jooxe ci ay xéewal ak yiw loola nag moom lay waxtaane woon ci ajuma ji weesu tey nag ñu war a waxtaane ndax aj moomu ki nga xam ne war na koo def dafa war rek saa yu ko waree ca saasa la ko war a def su amee xaalis ba am yóbbal bi am loo xam ne itam dana ko mën a dan am na kàttanu wér goo xam ne mën na koo def te am xaalis boo xam ne koo defee ndax saa yu ko amee rek ca saasa ci at moomee da ko war a yóoxe wala ndax sañ na koo yeexe ba beneen jamono mu soog koo def loola nag am na ci ay ñaari xalaat yoo xam ne ñëw na ci ñenn ñi dañoo wax ne saa yu la aj waree rek da ko war a def ci saasa am ñoo xam ne dañoo wax ne saa yu la aj waree sañ nga koo yeexamtul tuuti soog koo def waaye na nga góorgóorlu nag ba bala nga bala bala nga fay jóge nga def ko waaye comme xamuñu ban jamono lañ fiy jóge itam kon day mel ni wax ji nga xam ne moo wax ne dañ ko war a def ci ci ci gaawe moo gën a wóor moo gën itam xel lenn li nga ñi nga xam ne nag wax nañ ne dañ ko war a de sañes na koo yeexe fañ ko teg moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj ñi ngi ko farataal ci juróom juróom benni at ci ginnaaw gàddaay gi tey bi ko yonent bi daataan def aj aj at gàddaay nañ ba am fukki at mu soog koo def mu mel ni kon toog na ay at soog a def at ji ñooñe nag ci loola lañ wax ne bu fekkoon ne aj saa yi la waree ca saa saasa nga ko war a def kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko da koy def ci at ma nga xam ne ci lañ ko war a waral waaye nag yeexe na ko ci juróom benn at juróom benneelu at ci ginnaaw gàddaay gi lañ ko lañ ko farataan waaye moom dam koy def aj gàddaay nañ ba am fukki at mu soog koo def ñenn ñi wax ne li tax nag ñu wax ne dañ ko war a yeexe dañ ko war a gaaw a def saa yoo amee kattan boo ko war a defee ak man-man boo ko war a defee loola fañ ko teg seen wax mooy dañoo gis ne am na xadis boo xam ne ibnu abbas boo ko nett li jëli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne képp koo xam ne da ngaa bëgg aj day da ko war a gaawee ndax am na yoo xam ne day gar day gaar doomu aadama te kenn xamul nu mu ko waxtu wan waxtu la koy gaar kenn du xam wax wan waxtu la koy ñëwal te bu ko ñëwalee mën naa doon gàllankoor boo xam ne dana tax aj googee na ko bëggee woon du ko du ko mën a defee noonu mooy kenn ku ne mën ngaa yéene bëgg am nga goo mën a goo mën a am nga xaalis boo ko mën a defee waaye nag nga ne damay xaar ba beneen ba déwén a gin ba ba ba ba at yi di ñëw ci kanam ndax nee na loolu ndax danga du wóor na mën mën nga fee wéradi te wéradi googee mën naa doon sa gàllankooru dem aji mën nga mën nga man yoon wi tam man dara mën na ca xew ba dem nga dootu jàpp jàppale comme ni nga xamee nii la xewee daaw ci at mi weesu man aajo yitam tam mën naa ñëw ba la nga waajaloon ngir bëgg ko ajee aaji aaji ñëw jël jël ko ba kon nag li gën a wóor mooy nga defe ko nga def ko ci saa yi la waree rek saa yoo amee kattanu mën koo def rek nga def ko ci te gaawee ko loola ñooñu foofu lañ foofu lañ teg ne kon gaawe gi moo gën a wóor ndax moo gën a dal xel waaye nag ñi nga xam ne nag dañoo wax ne dañ koo war a yeexe maanaam sañ nga koo yeexe ay at soo koo def ñooñe nag biñ gisee addis bi nga xam ne yonent bi dafa wax ne nit mën naa wéradi man yoon wi nga xam ne moom ngay jaar pour dem fa yate mën naa doon loo xam ne dana amatu sécurité bi nga ba nga man man faa jaar aajo tam mën naa ñëw ba la nga waajaloon jël ko ba dootu mën a aji ñu ne kon ñoom addis boobu nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wax dafa daf ko wax rek ngir soññee ngir bëgg ñu gën a ñu gaawe aj waaye tekkiwul ne dafa wax ne dañu ko war a def ci saasa loolu nag kon mooy li nga xam ne moom lañ dégg ci aj mooy benn sañ nga ko yeexe ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yeexe woon na ko wañ sa war gaawe gi nag moo gën a wóor ndax li nga xam ne moom la yonente bi wax ne nit ki mën naa wéradi yoon wi itam mën naa ñàkk sécurité la nga la nga waajaloon itam ajo mën naa ñëw yóbbu ko kon ñett yooyu yu nga xam ne mën naa yóbbu li nga xam ne mën naa dox sa digganteeg aj ji ni nga ko bëggoon a bëggoon a defee te kañ lay ñëw te mën naa ñëw waxtu nekk loolu nag tax na ñu ne wax ni kon ñoom li tax yonent bi wax loolu day dafa bëgg rek soññe ngir bëgg ñu gaawee aj ci képp koo xam ne mën nga koo def am nga kattan boo ko defee waaye nag aj moomu kan nga kan la war aj ar aj mi ngi war ab jullit li tax ñu wax ne ab jullit nag dañuy dégg ci àjjuma ji weesu ne am na koo xam ne laajoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maanaam jëf yi nga xam ne moom la ñuy jëf moom di ko jëfal suñu borom ban moo ci gën mu ne ko di ci gën day mooy gëm yàlla ak yonentam te xam nañ ne gëm yàlla ak bi du jëf waaye nag de li ko li mu ko bëgg wax mooy da ngay xam lii tax ñu nangu jëf ba noppi soog a laaj jën jëf mooy gën te xam nañ lii tax ñu nangu jëf mooy faaw da ngay nangul suñ borom doon nangoo doon jullitam soog a soog a mën a jëf suñ borom mën koo nangu waaye bu fekkee ne nanguloo suñ borom doonoo ab lu ba ji jëf ji ji baax baax itam du tax yàlla lim la ci fayee mooy dala koy dala koy gaaweel fii ci si yonent ki nga xam ne nag mooy jullit moom dag koy denceel ba ëllëg mu fay ko ko kon ñu xam ne lii tax ñu nangu jëf faw day doon koo xam ne ku gëm yàlla la nangul yonent bi ci sa ci ci ne moo may jàngal nan lay defee aj waaye sa ñëw ko defee ci nim la deexee sa ñëw ko defee ci sa giseenu bopp waaye ni la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ni nga koy sañee defee beneen bi ci tegu itam mooy lislaam du teg du teg kenn jëf te ak amul kàttanu gum ko mën a defee faw say cër day mat nga am kàttan goo ko mën a defee ñaareel bi itam day faw da ngay doon koo xam ne lañ lay xamal ngir bëgg nga def ko am nga xel moo ko mën a xame kon loolu lépp doon ci liy tax aj war la faw da ngay doonu jullit am kàttan goo ko mën a defee an am am yitam xel moom na ma boo xam ne da nga ci mën a xamee lañ lay jàngal nan nga koy defee ñaareel ba ñu tegu tegu itam mooy li nga xam ne xay na doo deesu ko tuddati léegi wala ndax bëriwut muy ak njaam waaye man nañ koo firee léegi ne mooy la nga la nga tiim alal jënga tiim mu doon loo xam ne yaa ko sa bopp waaye añ alal joo xam ne lu mu bari bari dañ la koo dénk itam doonul loo xam ne day daal di war a doon loo xam ne day aj da lay war ndax mu alal ja ba aj ji la ci war kon faw alal ja tiim lu mu bari bari day doon loo xam ne yaa ko moomal sa bopp waaye boo ko sa bopp aj warul la ñaareel ba ca tegu ba ca tegu mooy danga koy man man gi nag ci yaram lay nekk wala ci ab yóbbul bu xam ne da dana na mën yóbbu ak ñaareel bi itam am yoon woo xam ne am na sécurité woo xam ne man nga caa jaar ba àgg fa nga xam ne fa nga loolu mooy kon li li li nga ki ki ar aj ji war ak ni nga xam ne ndax bu ko waree da koy gaawee war a da ko da sañ na koo yeexal kon ñaar yooyu lañ ci jànge beneen bi ci itam ñu xam ne lislaam dafa fonk lool bi nga xamee ne wax nañu ne innamal mu'minuuna ixwa mbokk jullit yi day li nga xam ne moo leen boole tam te te muy te muy lu dëgër mooy ñu yëg ne ñoom day ay mbokk lañ te mbokk googee doonut loo xam ne dañ ko dañ koo sàggul seen bopp waaye yàlla moo ko ko def ngir bu doon bokk ci pas-pas yi nga xam ne moom lañ war di doxe loolee nag tax na suñ borom ngir dëgg bam bañ ca tegee fa aslihoo bay na axawaykum muy mbokk gi mbokk googu nga xam ne moom lañ bokk ab yëg-yëg la ab yëg la yëg-yëg li njëkk war a doon ba ca teguwaat itam mooy dox dox ca dox googee nag mu mel lislaam dimbali nañ ci yoon ci ay yoon yu bari ndax gis nañu ne baral na loo xam ne dafa bëgg ñu ciy daje waxtu wu nekk ci ñi nga xam ne dañoo jege barab ba mooy julli yi juróom xam na ne war waral na ko te bëgg na itam buñ ko def ñu defee ko ci ñu defee ko ci ci jàkk kon jullit ñi danañ fa daje xam yëg ne ñii am na lu leen boole ñaareel ba itam defaat na loo xam ne dana boole ñi dëkk ci dëkk bépp ñu man cee daje yëg ne ñoom kat am na luñ bokk muy mel ni bisu àjjuma bii wala bisu koriteeg tabaski am na beneen boo xam ne da koo def nag ngir bëgg doomu aadama jullit yëpp ñu ne ci àdduma àdduna àdduna suñu yëg ne ñoo am na lu neen boole muy aj nga xam ne ñëpp koy defandoo tey fu ne la ñuy jóge mu mel ni kon nag bëgg na mbokk googu nga xam ne moom la ñu moom la ñu boole te bëgg ñu dox te bëgg ñu di ko jëfee moom loolee bëgg na mu feeñ ci suñ doxin bëgg na mu feeñ ci suñ jëfin ba tax nag mu defal nu aj nga xam ne moom jullit yëpp lay dajale waaye bu dajalee jullit yëpp itam war nañoo jullit ñi war war nañ caa yëg ne dafa mel ni lii kat ab conférence la boo xam ne par année na yoo xam ne dañ koo defal ngir jullit ñi loolee nag conférence boobu ñu leen defal ngir ngir àdduna war naa jur loo xam ne mooy war nañoo jàngataat problème yi nga xam ne moom la jullit yi di jàngoonteel war nañoo jéema a wut itam ay solution ci problème yooyee nga xam ne moom la jullit yi di jànkoon jàngoonteel tam doon solution yoo xam ne dañ koy teg ci teg yi nu xel teg ko itam ci koo xam ne xam teg yi xam ko xam li nga xam ne moom la doxe jamono di doxee ndax loolu mooy tax ñu man koo sottal ci ni nga xam ne lañ ko bëgg sottale ñu war a set ñu war cee jàngataat itam xam relation yi nga xam ne moo dox suñ diggante ndax ñu ngi koy doxal ni ko war a doxee rek wala waruñ koo doxale niñ ko war a doxale bu ko defee nag loolu mu mel ni dafay dafay fàttali kon ne ni ñu xam ne ba am na benn barab boo xam ne jullit yëpp ñoo fay dajeendoo ci benn waxtu ci benn bés muy arafa te loola te ñëpp kenn ku ne lu weex ngay sol ñu bokk toog jublu penku ñaan suñ borom ñu xam ne nii ni mu xewee ni lay xewee bu ëllëgee ci ci àllaaxira ci kanam suñ borom te bu boobaa danañu laaj ndax mbokk googee nga xam ne moom la leen waxoon ngeen sàmm ko ndax yéen a ngi koy sàmm na ngeen ko war a sàmmee ndax kóllëre googee nga xam ne moo doxoon seen diggante ndax yéen a ngi ko doon sàmm na ngeen ko war a sàmmee ndax yéen a ngi doon bàyyi xel problème yi nga xam ne moom la seen mbokk di jullit di teel ndax yéen a ngi koy bàyyi xel wala bàyyiwu leen ko woon xel bu boobaa nag te te yonent bi sa alayhi wasallam dañoo xamaloon ne dañoo xamaloon ne képp koo xam ne lii xew ci jullit ji ak problème yi ciy xew yépp yëngalu la bàyyi woo ko xel na nga xam ne boo waxee ne ci jullit yaa ci jullit yi laa bokk itam bokkoo ci te yàlla loolu yaakaar naa ne firnde yu leer la ci ñu xam ne kon aj day war naa doon loo xam ne jullit ñi dañ ciy war a yëge ne ñoom day lii ab kongare la boo xam ne dañ ci war a jànge jàngate seen problème yi nga xam ne moom leen jànkoon jànkooteel war cee jàngate itam di nga xam ne mooy jafe-jafe yi nekk war cee jàngate itam relation yi war a dox nan lañ ko war a sàmmee ak nan lañ ko war a nag dafa mel ni jëf ji nga xam ne moom lañ koy jëfin yi ñuy jëfee aj wuute naag li nga xam ne moom la yonent suñ borom bëgg ndax xam nañu ne boo demee ci aj dañuy wax ne asiatique yi fii la ñuy dal wax ne africains yi fii la ñuy dal wax ne européens yi fii la ñuy dal wax ne ñii fii la ñuy dal loolu day mel ni kon ba tey li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ci ñu xam liñ séq te war ko sàmmonteel ñoom dox nañu digganteeg loolu ba niñ ko war a doxee duñ ko doxee niñ ko war a doxee ndax waruñu woon a am séparation boobu waruñu ñëpp rek dañoo waroon a bokk buñ leen buñ leen di organiser itam war mën naa doon organisation boo xam ne duñ ber rek aw aw aw asi ab continent ne continent bi fii rek lay dal waaye continent boobu mën naa ànd ak ñeneen weneen continent bi itam ànd ak ñeneen ñu xam ne kon am na loo xam ne moom lañ bokk am na loo xam ne moom tax a jóg bu ko defee ñu sàmmonteeg loola dox loola loola mooy tax li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci ñun ci ñu xam ci ñu yëg suñ bopp yëg yëg ñan lañ doon yëg liñ yëg liñ seq loola day day tax mu mën a sotti nii nga xam ni la ko suñu borom bëggee kon nag suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy ki nga xam ne moo mën a lijjanti ay mbir te moo mën a sottal itam ñu ngi koy ñaan moom suñ borom moomu nga xam ne moo mën a lijjanti mbir te moo am kattan gu lijjanti ko te moo am doole mën koo sottal yàlla nañu suñ borom dimbalee ba li nga xam ne moo jaaxal àdduna sépp te xam na ne dox na suñ digganteeg lu bari ci li nga xam ne moom lañu lislaam sant ci ñu war koo doxe loolee yàlla ko suñ borom génne ci àdduna si musal ci ñëpp itam ci kàttanam loolu mën na ko jàpp na ko te ñaan rek la wax ne nañ koy ñaan te nañ koy ñaan te luñ ko ñaan lu ne ma moom te man na koo joxe kon nag ñu ngi koy ñaan li nga xam ne moo dox suñu digganteeg lu bari ci nga xam ne ci mooy suñu war-war yi war a dox suñu diggante yi ak suñu bokk te lii dox suñu digganteeg moom loolu yàlla ko suñ borom jëlee loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ koy defal ginnaaw loolu itam ñuy tàllal suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy boromu kàttan te mooy borom ak man te mooy borom sañ-sañ te moom mooy ki nga xam ne moo mën a sottal ñu ngi koy ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba yéene ji nga xam ne moom la am ci doomu aadama yi te am ko ci lislaam yàlla ko suñ borom jàppale ba mu def ko nu kawe njortam tañ ànd moom te daje ci ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu itam képp koo xam ne sa sa tool mooy lislaam yàlla na suñ borom kattanal yàlla na suñ borom manal ba la nga xam ne yéene nga ko ci lislaam nga def ko ci defe nu kawe sa njort te nga ànd ak koog ña nga ko war a àndal te daje ci ngërëmul suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag ñu ñaan suñ borom itam li nga xam ne moo di jafe-jafe yi nga xam ne gis nañ ko te jullit ñi di ko jàng jànkooteeg loola te mu mel ni dafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xawoon na nañoo xamal ne am na noo xam ne bu ngeen ko dee doxe day problème du jóg ci yéen te ku ñëw ci yéen ku jóg ku ñëw ci yéen itam man ci yéen dara loola mooy dañoo xamaloon ne jullit ñi tekkiwul rek ab lim bu bari ndax lim bu bari mën nañoo jul doon ay jullit yu baree bari waaye nag ñàkk doole gee ak ñàkk yëg li nga xam ne moom lañ sëq ak ñàkk dox li nga xam ne moom lañ war a dox dana tax ba mel ni dañuy mel ne xobu garab rek lu ne ngelaw lu ñëw mën koo yóbbu fu ne mën koo dugal fu nekk te loola loola suñ borom te ñi ngi koy jàkka ñi ngi jànkoonteeg loolu ñi ngi jàkkaarloog moom itam te xam nañ loolu rek moo nu ko yóbbi mooy ñàkk yëg gi nga xam ne moom la ñàkk yëg li nga ne moo leen boole ñàkk yëg itam kàttan xam ne moom la suñ borom joxal xamal nañu ne ñi nga yéen ñi nga xam ne de yéen jullit yéen ay jullit ñi mooy ñi nga yéen ñi nga xam ne li ma leen sant yen a koy def ni ngeen koo defee ni ngeen ko war a defee yéen a taxaw ci li ngeen war a taxaw ni ngeen ci war a taxawee man maa leen leen war ne danaa leen dimbale kon ndimbalul suñ borom loo xam ne suñ borom a ko warlu yaakaar naa war naa bu fekkee nañ ñam ñam ko digal ña ngay doxe nañoo doxe ndigal loole ndimbal loolee dana ñaw bu ñëwee itam kenn du ci ñoom dara loolu kon ñu ngi yàlla na suñ mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom dimbal yàlla nañu dimbali a xam li nga xam ne moom lañ bokk te di ko dox ndax mën a dajeeg suñ gërëm mu suñ borom ngir ñu mën a nekk itam ñoo xam ne ñuñ warmaal lañ ci àdduna ñuñ bàyyi xel lañu waaye dafa mel ni warmaal geeg bàyyi xel gi itam di ko indi lépp mooy ñàkk a doxin ci doxin wi nga xam ne moom la suñ borom bëgg dox ko ñu ngi jéggalu ñëpp di jaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom mu jéggal yàlla nañu borom jéggal nañu yàlla nañu boole boole jéggal yàlla nañu boole sàmm yàlla nañu boole nargan ci ndigal li nga xam ne moom la ñu sant ba duñu xam leneen lu du moom duñ doxee leneen lu dul moom loolu suñ borom mën na ko jàpp nu ko yàlla nañu ko defal aqulu qawli hada wa astaghfirullah lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim